abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 14 juin général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal et figure emblématique du syndicalisme à l'hôpital principal de Dakar. une grande perte pour le monde syndical sénégalais. La rédaction de Sénéfo présente ses condoléances à la famille du défunt et au monde du syndicat. Une autre triste nouvelle, il s'agit du rappel à Dieu de Sokhna Safietoussi, fille de Serigne Babakarsi, premier calife général des Tidjane. Elle a tiré sa révérence mercredi à la Médina à Dakar. La levée du corps est prévue le même jour à la mosquée Ngaraf et l'enterrement à Tibawan. Le calife général des Mourides recommande une lecture collective du Saint-Coran demain jeudi 15 juin dans les lieux de culte et dans les écoles coraniques de Touba et du pays. Serigne Mountakha Mbacké a ordonné cette journée de repentance et de dévouement pour solliciter la préservation de la cohésion nationale dans le pays. Nous restons à Touba avec cette grande mobilisation des Baïfals ce mercredi suite au ndigal du Khalif général de Mourides Serigne Mountakha Mbacké de veiller à la sacralité de la ville. Ils ont sillonné les artères de la cité religieuse pour faire passer le message et appeler au respect des règles et consignes du Khalif. En Afrique, le bilan du naufrage d'un bateau qui a coulé lundi dans une rivière du centre-nord du Nigeria s'élève désormais à 106 morts, alors que les recherches de survivants se poursuivent, à déclaré ce mercredi matin la police. Mardi, un premier bilan faisait état de 103 victimes, dont plus de la moitié venaient du même village. Sur l'international, 78 personnes sont mortes noyées ce mercredi dans le naufrage au sud-ouest de la Grèce d'une embarcation transportant des centaines de migrants, l'une des pires catastrophes du genre dans ce pays. En Italie, les obsèques de Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre et ancien président du Milan AC, ont lieu ce mercredi à Milan en présence de hauts responsables politiques italiens. Ces funérailles d'État sont accompagnées d'une journée de deuil national. L'ancien président des États-Unis Donald Trump a plaidé non coupable mardi devant un tribunal fédéral de Miami en Floride dans le cadre de son inculpation pour des faits relatifs à sa gestion de documents classés confidentiels dans la soirée et devant ses partisans réunis dans le New Jersey, il a dénoncé un abus de pouvoir odieux. C'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé par la justice fédérale. Nous terminons par le sport. Présent en conférence de presse ce mardi, le capitaine des Lions, Khalidou Koulibaly, a évoqué l'importance de la rencontre face au Bénin samedi à l'occasion de la cinquième journée des qualifications pour la Cannes. Pour lui, il ne manque pas des ambitions malgré que les Lions se soient déjà qualifiés. Nous avons une première place au classement FIFA Afrique à reprendre parce que le Maroc est devant nous maintenant, a-t-il déclaré.